sëñ yow xam nga ni man ngaa bañ a naat moo ay mag mën ñu fekk ay ay sëriñ. d'accord ñu jàpp sëriñ. d'accord d'accord nit am nga droit protester am nga droit wax am nga droit def ñun bëgguñu toog di seet sëriñ bi dem bëgguñu benn tool bu ma laaj ëpp ma la mélangé ko waaye bu ma laaj tool ëpp ma la xel bu ma laaj bu ma laaj sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci moom sama yoon nekku ci moom sama yoon nekku ci gën a naa fekk gi nekku nekkuma ci gën a naa fekk gi sama yoon nekku ci bu ma laaj loo may laajee laaj bu ma laaj bu ma laaj ëpp ma la xel loo may laajee voilà actuellement nous sommes New York est 135 qui Fatali, élection président élection qui aura a à euh, ASA euh, euh, association des Sénégalais d'Amérique tey le votre vote bi gannaaw nag euh, yenn ñooñuy Serigne Mbacké Ndiaye di candidat opposant bi euh, gannaaw ba leen rejeté seen candidature ñu euh, seet woon benn comité dialogue bu fi amoon pour saytu élection yeeg tëralin beeg doxalin bi finalement ba comité boobu mujjee ñaan ñu dàq élection yi beneen wàll ga ne ñoom duñu dañuy amal élection yi duñu déglu ñooñu ba tax tay ñu ngi fi di amal élection yi Serigne Mbacke ndjay di candidat bi nak arrêté nañ ko légui yobu nañ ko commissariat bi gëna a ci fi ci Manhattan instant yi nag euh, ñi and ak euh, Serigne Mbacke ndjay ñu ngi taxaw ben par benn euh, kenn ku ne ku bëgg ne élection di fi am banen wàll gi aussi di ñi and ak Dramé ñom aussi ñu ngi wax né élection dina am parce que ñom ñu ngi commencé voter gannaaw bu superviseur bu police bi ñëwé bàyyi gaay ñu dem dugg voter Euh, bàyyi commencé ne élection yi vote yi commencé am finalement nak ci lañu japp jàpp sëriñ sëriñ nag li tax ñu japp ko mooy euh, dafa dugg ci biir ñu nako ce tour nekkul ci système bi ta mom candidat la en même temps déposé won euh, caution pour mëna a bokk ci ñu wara a jiite président association bobu nono di ASA di association des sénégalais d'Amérique instant yi nag euh, amagum na benn arrestation ki nga xam ne moo nekk leaderu beneen côté bi di Serigne Mbacke Ndiaye jot nañ ko arrêté léegi léegi à cause de gannaaw bi mu ñëwee pour voter euh, ñu xamal ko nekk sa tour nekkul ci système bi moom nag depuis semaine bi yëpp mu ngi alerté pour wax ne gars yi ñaari DTBH lañ yor mooy ñaari euh, base de données la ñu am ñooñu Serigne Mbacke Ndiaye ñoo ngi dem ci instant yi commissariat bi pour topp ko pour xooli Serigne ci lan la nekk. voilà ñeneen gi ñoo ngi ci line bi pour dem voté ji pour dem voté ji voilà. voilà rang bi nag euh, mu ngi continuer jamono ji police nag teg na line bi ne képp koo xam ne jéggi nga rang bi danañ la teg loxo amaguñ nag beneen arrestation bu dul bi nga xam ne mooy leaderu keneen ki di Serigne Mbacké He's pour dem vote ji gis nañ ci nga ñëw nañ pour dem vote pour dem euh, vote ji jamono ji is the one they accepted, the other candidate. Oh. Tell him to come move his car. Maybe we can drive him here and beat him up while he's moving the car. <laughs>

guys, it's a Toyota Highlander that needs to move. Hey, eh, that's you, come on. That's you? The Toyota? That's you? Okay. It's you? Okay, no, Thank you. sala. yow peut être que dem. kooku lañ lay não a. waaw waaw. c' est simple de balaa nga é kay c' est très não c' est simple não ñëw não sama não jël não cent não dollars. não bi não bi não annulé não ñu não si não élection. não moromu não si não sama ah ah bu ma filmé moom nañ koy waxee bu ma filmé moom ah non ñoom ñoom privé lañu ñii. ñii ah, par exemple mën nañu leen. non non mais bu nekkee public police moom amatul benn ku ñu war a filmé ku ñu não a filmé moom a jaaxal. Ah. public police lañ nekk. ah waaw ah. mais public place moom. waaw am nga droit filmé. waaw mais bu la nit ki ne bul. waaw boobaa. ay non am na droit moom. waaw mais mais bu fekkee da nga não ci public. waaw waaw je comprends yaay foofu moom am nga droit nga def boo demee ba nekk ci kanamu nit. mu ne ma não c'est ça ay non yeah ay non. tamit droit am. ay non xam nga lu ma la. ay non xam naa yeah yeah that's all voilà comme mbokk dañuy dem xooli banen wàll gi di euh, ba tey pour rappeler que Il y a nel dañuy dem commissariat waaye ñoom aussi ñoo ngi dox ne dañuy dem commissariat pour Il Serigne Mbacké Ndiaye mi ñu arrêté xool ci yan loxo la nekk gars yi nag commencé ñëw encore di voté si xanaa dañuy topp euh, ligne bi dem xool gars nek nekk commissariat ñu ngi wax ne mu ngi nekk euh, cent cinq bi nekk ci fàttali raison yi tax ñu ki nga xam ne moo nekk le euh, candidat opposant voilà feu bi L'élection est qui à 9h le on a commencé finalement 12h euh, 11h40 minutes Le démarré après il y a ay ñetti nit bi ñu duggee la de commencé vote bi commencé am ay euh, problème commissariat bi soriwul je pense voilà c'est ici. voilà egg si nañu commissariat bi ci fa euh, ci fàttali fii nag Manhattan district la mooy secteur u Manhattan euh, parce que ñoo ngi 135 waaw euh, fii mooy commissariat bi nga xam ne qui est le superviseur bi commissaire bi nga xamné mo arrêté le candidat voilà Serigne de Euh, ci fatali ne euh, mbokk yi safa seetaan Sénégo TV senego.com li ñu dajale fi tay moy euh, élection wala assemblée générale bi nga xam ne wara am tay pour fal président ASA ASA nag di association des sénégalais d'Amérique gannaaw nak temps yépp ñoo ngi ci won wajum élection yi pour amal benn fal benn président bu bess mo amone ñaari candidat premier candidat bi di Dramé Dramé nag nekkoon trésorier général bi ak euh, ancien candidat bi moom aussi mujjul posé candidature mais Dramé moo waroon a dem ak ki nga xam ne moo nekk Serigne finalement nag Serigne Mbacké Ndiaye dañ ko rejeté à cause de euh, background check background check mooy casier boo xam ne da lay wax ne yow defoo amoo ben criminal report fii ci euh, Amérique Serigne Mbacké Ndiaye gannaaw bañ ko laajee background check moi, mu ngi indi federal background check federal background check nag mooy casier bi nga xam ne dafa concerné Amérique bi gars yi ne ko laajuñu la federal background check mais ñoo ngi la laaj euh, New York state maanaam state euh, background check maanaam background check boo xam ne New York la con euh, la concerné mais nag moom dafa indi cinquante états yëpp seen background check gars yi rejeté ko ci loolu may ko benn forty eight hours benn quarante huit heures boo xam ne dafa war a ñëwaat pour indiwaat papier bi ñu ko laaj. ba mu ko indee nag ne ko it's too late finally gars yi dañ ko déclarer génne ko ci si ko ci euh, élection yi ne mënul bok gannaaw biñu défé sen déclaration ci radio bi euh, euh, wax ne Serigne Mbacké Ndiaye mënul euh deux jours après nak comité bi moy conseil général El Nangandaw ak euh, Aladji Dramé bi jité Mika ak ki jité association des catholiques yi nekk fi ci New York ak aussi yenn ci kilifa yi nga xamné ñoo fi nekk def nañ ben waxtaan euh dajalo waxtaan pour mën xol xool nan la trouver solution ba demander ñu annuler élection yi wala ñaari candidat yépp dem wala ñu pousse ko lu tollu ci 1 mois. ñom loolu lañ joxé won mais nag euh, banen wàll ga di côté bi fété beneen candidat bi di Dramé ñom muju ñu nangu loolu ba taxna tay tey lañ amal élection yi ñi and ak Serigne Mbacke ndjay ak Serigne Mbacke ndjay di banen candidat bi ñom aussi gënaaw ba ñu ñëwé ci euh, lieu de vote bi wax ak. Euh, Euh, gars yi ne leen élection mënul am ba ñu mujjee woo police di NYPD ñoom ba ñu ñëwee nag euh, calmé nañ affaire yi jëm nañ waxtaan ak gars déglu ñaari temps yëpp bañ paree lañ ne ñoom jot nañ di pot bi wan ne ñoom dañuy def élection gars yi dugg commencé war a defar voté ci lañu ñu euh, dugg pour tànn ñi war a voté génne carte yi mais nag gannaaw Serigne Mbacké Ndiaye bi mu duggee pour voté ji lañ ko wax ne ko nekkoo ci système bi te moom candidat la joxe woon na caution 500 dollars pour mën a am euh, li nga xam ne mooy euh, ñu jox ko ticket bi nga xam ne mooy tax mu doon candidat gannaaw bañ ko cegee nag ne ko yow bokkoo ci système bi am na woon na ay jàppante ci biir ba NYPD euh, North District jot ko arrest jamono ji may wax yow mu ngi ci biir commissariat bi nga xam ne moo nekk fii ci Manhattan 135 essant euh, yi nag ñooñam yi ñoo taxaw à côté di xaar parce que dafa wara am audition one hour fi ci biir ak euh, commissaire bi gannaaw bako superviseur bi di déglu instant yi euh, ñu japp né mom le candidat bi nga xamné mom foté benen walu bi de Serigne Mbacké Ndiaye ci fatali rek né teg nañ ko loxo instant yi may wax ak yow ci biir commissariat bi nga xamné mo nekk 135 xam nous ñi une ci Serigne déclaration gannaaw dañuy waxtaan ci sen biir euh, monsieur Dramé ngeen ancien président bu association des sénégalais d'Amérique. Euh, en même temps jamono ji mo Mika le président bu Mika Mika nak un muslim euh, non Mika oh my god <laughs> muslim. Muslim, uh, no, <laughs> oh my god, I just forget man, how to spell it. but Mika ba mu ñëwaat sama xel xel bee xaw a fàttali tuuti mais incha allah naa leen wax lan mooy Mika uh, moom El Hadji Pape Cheikh moom aussi di ancien président ci bokkoon comité dialogue bi nga xam ne ñoo doon wax pour ñu pousse élection yi ba ñu régler problème bi moom jot na wax ak ki nga xam ne moo nekk ci porte commissariat bi nii xam naa dañuy dem jege ko tuuti xool yan kàddu la fa jëlee. Euh, lan la jëlee ci biir loolu loolu la ko gis nga leen commune bi ñu tuddee Kolda. consulté bi ñu wane ni nga ne yaa ngi def élection yi laa ko xam. def élection États-Unis nga bàyyi ko sama tànn. kenn kenn mënu ko. waaw ñu gis nga si tànn. ku bëgg a participer da nga war a bàyyi nga participer. wax dëgg yàlla. kii waaw kii waaye ñu ko doon laaj. joxe na kii joxe na. mais ñu ne waroon ci mardi si mardi jox na leen ko te mardi jox na leen reçu yi mardi yi mu empreinte yi ñu ko jox na leen mais président commission bi moo naa fekk boo xam ne mag la mel naa fekk mag la mel naa fekk moo tax ñu indi ko fii boo ko def danga ko wax ñu dégg pare ko moo tax ñu indi ko fii président fi defee Seexul Xadim seede na ne dëkk bi communauté bi yàlla mi ñu bind suñu bëggoon a régler dina am problème parce que ay naa fekk fi nekk te dañu ay mag ay naafeq a ci nekk. ñu leen ci appuyé daal. waaw. ñu ngi ci consulat bi. suñu ci boppam laaj ko. yaakaar naa moom ci ma ne ma mais ñu annoncé lu démb. loolu nag fii rek ma ma ma sëriñ joxee confirmation. waaw si si maa ko yëg. mu jot ko ma ne ko xool sëriñ bi am na ko ma ne ko. waaw ñu ngi koy xool sax ñu ngi koy mën a wax ñu ngi koy mën a wax. léegi ndax ñun ci loolu bokkoon da mu indi indi bu mel ni moom mu defoon def defoon indi la mu indi la même document. maanaam après mu insisté bu yàgg si sa dina bàyyi mu consul mu consulter mu consulter yeneen maam bu gën jëpp. mooy paa bi ci biir mooy président pour ñu jëm état. benn paa taximan. waaw yow vraiment ñoom ñooy masawu ci coono yi yooyu wax dëgg yàlla waaw waaw mag daal li ngay def nii. loolu la ñu loolu la ñu waaw non non kii moom jàkkaarloo sëriñ moom la génn man wax na. waaw wax naa leen ne ñun li ñu bëggoon mooy élection bañ a am. kon dèjà wax nañ wax nañ solution yi ak situation bi tamit toll. waaw ñaari candidat ñoo war a dem. Mm-hmm. kenn ki empêché na ko ba def ne kenn dem moom. su ma leen xoolal États-Unis su ma leen bëggoon toog ne bay doon wala suuf si nar a teg rek moom rek mooy ne candidat kenn du ko opposé. waaw loolu xam nga ne réew mi de tàkk. loolu loolu loolu c'est inacceptable. ak kii ak yow. bon. Euh, iniare o visediamo Ione che ovvio italiano ve lavoro che poi ci sono Yine bonser lisansı yapmak var. Yine de ben sana da çok güzel. Kontrol ediyor. Bunlar dahil şey. var. Yok, yok, yok. Hemen arkadaşım bu geldi. Bu geldi. jaara coon waaw comme moom ñëwoon ko moom ñëwoon na wax wax wax na rek yow ñëwoon ko wax na jaara soxla waaw ñoom boo fa bàyyi na ñu koy nekk di di voté dèjà loolu lañ doon fay bàyyi ci benn candidat yi ñu koy voté benn candidat yi ñu koy voté jaarul daa tegu ci yoon su ma gisoon naa ñu bëri ci buntu ba ñu taxaw noonu yëpp taxaw ñoom dañu ñëw pour voter euh, voilà dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom la euh, kii bi yëkkati di euh, El Hadj Pape Cheikh di président bu Mika mu di Murid Islamic Community in America loolu moo nekk Mika Murid Islamic Community in America

baña amal élection yooyu ci euh, téyu bakanu euh, communauté bi nga xamné ño nek fi ci euh, New York mom nak ñëw ci buntu commissariat bi pour demander pour gis ki nga xamné moy candidat bi nga xamné mom la gantal candidature di Serigne Mbacké Ndiaye mais dañ naka mënagul nek parce que Amérique ak sen si procédure ni uti démé wuutee na nak xawna a yenn procédure mais nak dëkk bi boo ñëwee def euh, dara dañ lay déglu xool yan circonstance circonstances. Euh, la déglu euh, jël sa report xool lan nga def déclaré voilà instant yi nag mën nañ jàpp ne Serigne Ndiaye mu ngi ci biir pour ñu déglu ko ci lañ koy arrêté nag mooy moom li mu wax dañ koy arrêté ci nee dafa ñëw turam nekkul ci système bi muy xam nga fii police bu la joxee warning euh, two three times day am droit arrest la voilà loolu la pour déglu la yóbbu la commissariat parce que euh, pour man la déglu xam na looloo tax nag instant yi ñuy déglu euh, Serigne nañ jàpp ne instant yi mu ngi ci biir yenn mbooloo bi ànd ak moom aussi ñoo ngi xaar ba tey xam naa dañuy taxar leegum rek incha allah xaar lan mooy am ba xam avocat dina ñëw pour. déglu ko yenn ci comité sénégalais bi aussi ñu ngi ñëw benn par benn ci fàttali né vote yi tamit mo ngay am ci euh, ci ba vote yaa ngi continuer ci candidat yi nga xamné ñoo and ak euh, ca banen wàll ga di El Hadj Dramé euh, dafa sedd nag xam naa moo parce que ñoo ngi ci instant yi seddaay bi tawul na ci 2 degrés il est 12 h 40 minutes du midi voilà euh yi nak ñoo ngi xaar ba xam nan la wànneen di mujjee ak ay gëtam yeneen officier yi nga xam ne ñoo newoon ci bunt bi ñoom rejoindre nañ xeet carte bi maanaam ñëw ci office bi pour euh, renforcer rek xam na xam naa dañuy taaxarleegum ana tax na lan mooy amagum ci biir commissariat bi di fàtte ne ba tey di fàttali nit ñi ba tey ne ñoo ngi biir man Manhattan euh, instant yi xam naa euh, li ma ko waxee woon ma jël ci gars yi kenn koo xam ne mën na wax koo xam ne encore ñu bari ñoo ngi laaj euh, lan moo xew lan moo xew li xew euh, xam naa dañuy répété waat rek un peu euh, ci fàttali ne élection yi nga xam ne moo war a am ci ñu war a jiite ASA moo waraloon coow li ba tax le candidat est arrêté pour l'instant actuellement il est dans les locaux de de Manhattan District jamono ji may wax ak yéen xam naa nag dañu ngi xaaragum ba xam nan la mbir yi mujjee gannaaw buñ ko dégloo ba pare xam naa dañuy jege ñenn ci nga xam ne ñoo dend ak sëriñ rek wala ñoo ànd ak euh, le candidat Serigne Mbacké Ndiaye xool euh, ba xam euh, yan kàddu la ñu yëkkati moom El Hadj Cheikh Dramé nekkoon ancien candidat bi ba tey mu ngi demaat pour jegewaat xool na la mën a amee ba gis ki nga xam ne mooy commissaire bi di fàttali ne moom mooy moo nekk ancien président bu bu bu bu bu association voilà si fatali nak li waral tool yépp association bi dafa am ay cadre yoo xam jël nañ ko ñenn ci opposants wala ci ci bureau bi wax ne dañuy jaay kër gi nga xam ne la leen président Macky Sall ci pour pour dalal ci doomu Sénégal nga xam ne ñooy soog a ci dëkk bi wala ñi nga amuñu fuñ jëm genre. Euh, ndax ku nga jamono ji immigration clandestine moo ngi am ci Amérique ba tey nit ñaa ngi jaaree ci côté Mexique ñi ñoo euh, ñu ngi instant yi ay doomu Sénégalais yu euh, prison yi ñu tee gannaaw bu ñu ñëwee euh, ci frontière yoonu Amérique tere bu demande asile ñooñu nag bu ñu leen bàyyee wala ñu release leen wala ñu liberté provisoire am association bi la pour mën leen en charge mais nag taxoon nag gars kër association amoon ba léegi mujjee nañ ko en même temps di report ne dañu amee bor plus de 150 000 dollars Euh, ci kër gi nga xam ne fa lañ luyee nii ci siège bi nga xam ne fa la nekk nekk one sixteen between Frederick Douglass and euh, Seventh Avenue euh, kër googu nag ay bor yu toll ci cent cinquante mille dollars xam naa mënu ma ko xayma ci franc CFA ba tax na ñoom aussi ñu wax ne ak ñàkk AG yi am ñàkk ñàkk jubal gi ak ay yu bari yoo xam ne yenn baneen wàll gi teg nañ ko seen loxo taxoon ñoom aussi ñu report euh, wax na ne bëggunu euh, keneen xam nga bëgg nañ daal ñi ñi fi nekk ñu def seen rapport avant élection di am waaye nag euh, mu jéewul am gars yi daal ñoom jàpp nañ ne dañu def forcing ba dem benn élection boo xam ne benn candidat rek moo am moo taxoon yenn kilifa yi defoon report dugal ko ci kilifay dëkk bi pour ñu mën ko annuler loolu ci fàttali ne jot nañoo def benn waxtaan boo xam ne benn commission dialogue ñoo taxaw

Euh, wala ñu nga xamné ñu arrêté euh, mbir yi wala élection du am ñom loolu lañ lañ ci table bi mais benn camp di camp Dramé ñom dañoo décliné loolu duñ ci nous dañuy amal élection waral bi ba waral commissariat bi nga 635 voilà et xam naa sedd na trop euh, mais dañuy xaar rek pour wan leen bu leen fàtte ne instant yi ñu ngi bëgg a dugg ci winter bi maanaam ci seddaay bi fa lañ toll nii xam naa décembre moom euh, bu commencé rek seddaay bi day commencé gën a métti instant nag mu ngi gën a euh, commencé métti boo gisee nit ñi ñu soloo rek ça veut que xam nga ne dëkk bi jamono ji sedd na. des na nag dina sedd ba nga xam ne boo rombee nit sax say mbag ngay yëngal mais doo tala taxaw. jàmm santé loolu tollaguñ ci mais loolu ci kanam la mais daal dañuy xaaragum xaaral ma gën a jege gars yi xool aussi euh, la lañ mën a jàppagum nii euh, ci <laughs> teg loxo bi nga xam ne teg nañ loxo candidat bi nga xam ne moo nekk Serigne Mbacké Ndiaye xam naa dañuy xaaragum tuuti xool ba xam fan la wànneen di mujjee ak ay gëtam en na ñu bàyyi leen tuuti ñu bàyyi ngeen xool. li fi amagum nii jamono ji incha allah 别人的不需要。 Euh, ci fàttali ba tey il est douze heures cinquante un minutes euh, fii ci Manhattan euh, ba tey ñoo ngi taxaw ci buntu commissariat bi di xaar ñenn ci nga xam ne ñoo ñoo ànd ak Serigne Mbacke Ndiaye en même temps xaar leen ba xam yan kàddu la ñuy yëkkati ñoom aussi ñoom ñuy waxtaan ci seen biir jamono ji dañuy xaarandegum rek moom aussi ba xam dinañ ko bàyyi am déet. en même temps ndax avocat am dina ñëwam déet pour ñu déglu ko ndax dina wax ak euh, commissaire bi sans présence su avocat ci fàttali nag fii nag du du du Sénégal suñu laa déglu ta tant que sa avocat teewul wala mu neex la rek waaw moom mooy loolu. Matar waaw ah, xaar ma jege kenn ci voilà xamna gaay dañuy ñëw fait waxtaan ñoo ngi jëm concerté wu Nous déclaration. ouais voilà Nous euh, ngi ak euh, monsieur Diallo monsieur Diallo ngi nuyu. ok ndax une nga Nous avons tay ñu xamna ni mu une euh, da avons né une ci élection ñu rejeté est-ce que man nga déclaration. Nous ci mbir mi ci pour la communauté sénégalaise bi sétane ñi live bi Nous xam lan xew. ngi nuyu. Marie euh, ngi ah, en ce moment ñoo New York euh, tey la a woon élection euh, bureau ASA l'association euh, association des sénégalais d'Amérique Il y a man bokkoon ci team Serigne Mbacke Serigne un des candidats de la femme ne moom moo doon am mm-hmm. représentant dans le cadre de la commission électorale. donc chronologiquement les choses se sont passées ainsi.

Euh, bëgguñu ko ñoom ba demandé wuñu ko background euh, check euh, état bu New York mu ngi demandé. Mhm. waaw loolu nag mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla amul benn benn benn cohérence et il daal di nekk seen. ndax mhm. tey jii association bi. c'est association comme ni ko tur bi ni ko bi waxee association de Sénégalais d'Amérique la. Mhm. kon tey jii booy background nit ki yaakaar fédéral bi moom moo gën a yélu maanaam. waaw mais malgré Euh, ñu aussi elle est importante la troisième fois euh, mais comme on est de bonne foi véritablement on est animé euh, vraiment d'une volonté une volonté de faire passer les choses mais dans la fin la ne fait problème am background check <laughs> a de 48 nañu après léegi il faut que yéen ngeen 48 heures ngeen indil ñu background check bu état de New York yàlla doxal euh, c' était le dimanche 4 euh, lundi 5 ñu commencé dox loolu euh, mardi 6 ñu dem jëm suñu Singapour ñu jëm suñu Singapour affaire bi génn bi génn donc boo affaire ba bi génn ñu les commission les membres de man ñu ngi fa la de la commission. donc le président man yi ñu man yi ma jël euh, Serigne Mbacke woo ko man yi ko jël boobu dañ leen doon woo pour wax woon ni ñu doon euh, procédure bi daf jël nañ fi lëppin bi russi disponible ñu léegi jour bi nga xam ne moom la ñu waroon euh, daje nañ mais booba background check état de New York bi lendemain bi la ñu ñu ñëw présenté nañ russi yi ne leen ñoo ngi ci procédure bi jël nañ suñu si lëppin demain Inch'Allah, incha allahu rabi ñoom micro bi le micro dina disponible waaye ñoom prendre en considération loolu dañoo ne non non le temps s'est écoulé ainsi de suite mais le yëpp nous, ko avoir rek véritablement une volonté manifeste d'écarter le candidat gérant te loolu pour la première fois c'est la troisième fois qu'il faut la mission. Pas partir aux élections avec le seul candidat loolu le moo xew ci euh, euh, euh, élection association d'accord jamono ji gis nañu vote bi jotoon na commencé ba le candidat a été arrêté est-ce que vous avez des si waat ci lu parce que nous, nous avons dañoo le dañu euh, Donc, donc euh, il est important aussi de noter privé le de bi waxtaan nañ pour trouver une solution à l'amiable une solution à l'amiable c'est tout simplement la solution équitable qui consiste à considérer tous les deux candidats moi et temps, mais également cette la Ndiaye parce que yaakaar aussi il jouit de tous les droits que jouit euh, euh, chaque membre de l'association des Sénégalais d'Amérique donc aujourd'hui comme nous, ñu leen bay rek candidats, on mais nous, sommes nous ci force parce que communauté de waxtaan nous am euh, ils ont des options deux options première option c'est d'accepter accepter Serigne avec comme candidat Deuxième option, c'est de repousser les élections à une date ultérieure. Comme ça, nous nous préparons, nous pouvons nous préparer, nous pouvons nous communiquer pour que nous puissions voter massivement. Mais il y a une option, nous devons nous faire des forces, comme nous l'avons fait Dao et Dao Atigay. Nous devons nous faire des candidats. Nous devons nous faire des candidats. Nous devons nous faire des candidats. am taxawaay bu mat sëkk pour war leen véritablement ce sont des élections c'est est une c'est juste des semblants d' élection c' pas une élection parce que des élections impliquent au minimum deux candidats te foofu benn candidat rek a fa nekk ak le le ak ak du bi ñu la nak lolu ñu ko nangu ñu taxaw ci bi nga xam ne moom lañ ko wara am parce que ñu lépp ay sénégalais lañu kenn wu kenn dara ñu taxaw

et donc euh, ñun tamit ñoo ngi xaar suñu looyee ñëw na n'est-ce pas mu ngi euh, ñoo ngi ñoo ngi doxal lu ñu war a doxal waaye daal li ma la mën a xamal la le temps d'en face bi wax dëgg yàlla et honnêtement parlant et je parle vraiment sous le contrôle de toutes les personnes épris de justice et véritablement et de paix dans cette communauté xam nañ ni teguñu ko ci yoon force la ñuy def mais aussi dafa am ay nit yoo xam ne qui sont tapis dans l'ombre ñoo xam ne ñoom ñoo leen di euh, ñoom ñoo leen di jàppale ci loolu d'accord merci beaucoup Merci beaucoup. ok kon mbokk yi dégg ngeen euh, ki nga xam ne moo Euh, secrétaire général euh, bu euh, candidat le candidat bu Serigne Mbacké Ndiaye di team Serigne Mbacké déclaration bi mu def sans yàq ñoo ngi xaar lan la la yan yan lan moy ruusee gum ci audition bi nga xamné euh, police bi nek fi ci Arlem mo ngi déglu mo ngi mo ngi.

après xamna ci la amé yenn ciow ba police mu jëkk tek loxo indi ko fii nga xamné mo nek 135 di 135 et ça instant nek le euh, ñu ngi déglu ñu ngi xaarakum lan mo nara euh, <laughs> nan la wàññeenti nan la ñu xaarakum naka la du mujjé ak ay gëtam. le commissaire bi nga xamné nak mo mo moo ordonné arrestation Serigne Mbacké il est là euh, xamna suñu jegewoon tuuti ñu wax len turam ak baat ñom moom mais xam naa kon dañuy yamale fii live bi en attendant lu ci amal rek ngeen resté connecté scotché sur senego euh, point com dara incha allah du leen rëcc da ngeen xam euh, li xew euh, ñuy laaj aussi répété pour une dernière fois que ne li am mooy élection AJA mooy association des sénégalais d' Amérique bi doon am tey jii ci 135 Harlem mujjee nañ élection yi nag mujjeewul am. Euh, élection yi mujjee na am gannaaw bañu annuler candidat bi nga xamné moy Serigne Mbacké Ndiaye ci fatali né élection yi ben candidat rek le mo mujjé dem muy tramé instant yi nak ñom ñoo ngay doxal vote ga ci benen wàll ko si yenn ñooñu Serigne Mbacké Ndiaye yi demuñu voté ju parce que ñenn ñi dañu boycotté ñenn ñi dañ leen joxoon rendez-vous ci euh, siège bi. élection yi nak amé wu ci siège u ASA ci ben private place la amé bo xamné mo ngi nekk ci 135. ñoom nag euh, ñëw nañ fa pour amaloon vote yi mais malheureusement euh, le candidat bi nga xam ne dañu annulé woon dañu rejeté woon candidature am moom dañu ko mujjee euh, teg loxo mooy seriñ Mbacké Ndiaye à cause de ñëwoon di voté et gars yi ne tour ne ko ci mu am ay kàddu ci biir ba ñu indi ko fii ci commissariat bi loolu moo waral ndaje fii ci fàttali conseil bi ak yenn mag yi dëkk bi defoon nañu benn report maanaam benn communiqué ba jébbal ko commissaire bi nga xam ne moo nekk fii élection yi war a amee di xamal que né communauté sénégalaise yi gannaaw bu ñu saytoo ñaari déglu ñaari version yépp ñoo li ñuy demandé mooy ñu pousse élection yi wala ñu bàyyi ñaari candidat yépp dem wala ñu tëg euh, siège association bi loolu nag le communauté euh, le comité euh, de dialogue bi bu sàkk woon pour def ko heureusement waaye Serigne Ndiaye est là et libre voilà xam naa voilà xam naa dina def déclaration dama doon bëgg arrêter la vie mais Euh, Serigne Mbacké Ndiaye est libre pour l'instant dama ji mën naa taal boobu rek fii filmel rek yaa defal noonu rek am naa son ay sëriñ li nga wax. maa ngi dugg gis gis boo xam ne ay vingt trois personnes yu voté ba pare quoi man oh, man dañ ko préparé. dañ ko préparé ah. Corner prison they do they don't do like this Corner prison they do they do they do they do they take it as good Corner prison is good. yeah. jëloon prison nga yëpp. ah non dañuy dañuy dem ba fële nañ dem ba nële ci bunt bu muy dem ñu doog a demaat. dañuy dem ba nële. ah non foofu jarul fa dem jarul dem jarul dem sëriñ def déclaration. non dina def daal dañuy dañuy dellu fee ba ñu gis ko. ba ba waaw ba ñu gis ko ñoom defuñu daal dafay jaar ñoo xam ne ñu ngi fi mu daal dem. kii donc mu génn. waaw. Ah. ah yow ko jëlee loo xamoon lool. léegi da nga ko fayoo la. waaw waaw jërëjëf waay jërëjëf fii la. waaw voilà lii moom mooy ne background check bi kay baax na. ok c'est bon. voilà gis ngeen ko euh, ki nga xam ne moo nekk. ah. voilà comme niñ ko waxee woon dëkk démocratie la ñu nek fi nag Amérique la du du Sénégal Serigne Mbacké Ndiaye a été libéré gannaaw buñ ko dégloo xool ne um euh, ñu dara lañ ko mëna topé ci lañ ko bayé mu dem instant yi nag mu ngi il est libre pour delluwaat fi nga xamné ne fa la élection yi doon amé xamna fañ fa lañ jëmaat ni ko war na def benn déclaration sëriñ. li nga xam ne dañuy dem ci association. non fa la ñuy dem ak mais dañuy dañuy jaaree doog a dem ANSA. dañuy dem ba léegi dañuy gis dañuy doog a dem ANSA. voilà waaye aussi ren dañuy amoon seen élection ANSA. ANSA nag mooy fi nga xam ne mooy bureau bi. d'accord. parce que sëñ Touba association boobu suba dañuy installé tey association bi suba dañuy installé tey non parce que non parce que ñëw na de. ñëw na de. d'accord ñëw na de. gars ñoo lay jéggi ñoo lay jéggi. topp xeexu ko xeex na liggéey nekkoon na rek. danaa dem nag bañ a tàq la ci tey ñoom la ko ñëw. waaw loolu la ñu def nañ dem fii ba pare. dañ leen defal rek dara ba ñu xam ne ñoom génn nga. da ngay dem ba pare ah, maa ngi nii. waaw ba ñu xam ne Serigne génn na.

voilà gars yi ñoo ngi dellu siwaat ci lieu bi ok ok da nga bëgg a wax

see, we have a peaceful people. Down Liu, you see, we peaceful people. We're going to electing, we, we have to run. We have to go 116 streets. 48 prison back is there. li ñu def mooy li ñu leen bàyyi ñu def bu ñu ko def kii ñu dem association ba ba ko ci yéen mu jox ko association ñaari ñaari président la ñaari président te bii mooy légal ok now we going there to join the prison We're going to go, do our election once to the association. Now, let's go. Let's go. Let's go. We win the fight. Okay. We got a freedom. We have a freedom. Okay. Guy, then. This is America. Guy. The market is not America. Guy, then. We have uh, a freedom. gars yi nee nañ dañuy dem ci siège bi pour amal fa élection yi xam naa gars yi lool lool loolu la ñuy def nii waaw

This is why we come to America, because black people, they represent us in America. They, they fight for democracy. The black people fight for democracy. That's not why we're happy standing here, talk and laughing, eat, make money, help our country. Because, of black people. Listen, 28 person. 28 person, Google it. Listen, listen, wow, vote I. Wow, 28. Man, man, man, man, my troisième personne, vous voulez voter. kon liste ba fan lañ jël waaw léegi foofu laa leen téye bi gis nga liste bi. waaw man man voté wu ma gis nga ni mu toll. gis nga kenn kenn du voté parce que boo fa. ñoom def nañ seen liste jox ñoo xam mais yow say nit say nit say nit waxal kenn du mu voté. non non non kenn du voté. kenn du voté bu dee tur. waaw waaw waaw. ñu dem ka ñu dem ñu dem voilà léegi xaaral ma jëlaale quelque si waaw xaaral saa ok ngay filmé léegi de ma nga def live xaaral xaaral xaaral bismillah pardon c'est bon ko jàppale léegi voilà c'est bon. léegi def na police. waaw waaw c'est pare ngeen ok ok c'est man ngi nga dem Serigne. waaw salaamaaleykum euh, yi nga xam ne ngeen li nga xam ne moom Euh, communité bi dajale fan yi yëpp ci ginnaaw ànd ceeg consulat ancien président yi ak notable yi nga xam ne ñoo dëkk ci ñoo dëkk fii ci Amérique waxtaan seen biir ndax gis nañ ne sama candidature dañ ko rejeté woon te teguñu ko fenn fu leer ndax lii rek wane na ko police ñëw na jàpp na ma yóbbu ma rën nañ sama kii ci fii fii seega xam nañ ne aw benn problème ci fii ci Amérique léegi rek mooy ñëw naa fii ne ñëw ne ndax nee nañ bokk ma ci biir ñëw naa ne damay voté jox leen sama carte gis ñu ko ci DDB association bi ndax loolu day ni ne Serigne Mbacke Ndiaye du membre organisation bi kon amul droit de vote ba pare président. ba pare xam nga am na loo xam ne ay caaxaan la. léegi nag li ci nekk mooy. xaaral ma pare ñu ko comme ni nga ko waxee ci rajo yi jamono yi. waaw

ndax bi ma leen joxe sama kii ci ordinateur bi lañ jëm dugal gisuñu ko foofu problème bi nekkee ñu ne ma léegi dañ lay aat ci système bi pour nga mën a voter ma ne ko non non noonu. waay loolu yëpp caaxaan yooyu léegi ñu ne ma non non damay def lii dañ koy ba pare ñu forcé ma tàkk ma yóbbu. waaw ba bi ma demee fële li ñuy def mooy comme suñu la jàppee rek dinañ jël sa baaraam pour nga ko xool. carrément amoo benn problème ci Amérique. ndax su fekkoon am na woon naa problème beneen état dañ ñuy transféré. macha allah noonu lay Amérique di doxee. kon daal bu ñu doon laaj yow. yow daal léegi naa leen daanaka ko. waaw gën a dinaa leer de. yaa gën a dinaa leer de. yaa ngi jafe-jafe daanaka doo génn fii. doo ma génn fii merci beaucoup. est-ce que est-ce que aussi dem taxawu fële ñu. ñu dem association bi. non dañuy dañu dem ANSA. fa lañ koy fare léegi. non non non ndax ñun dañuy dem fari ko ñun dañuy dem fari ko ñoo ñëw di ñu voté. voilà seen i carte. force ñu am carte de membre. waaw organisation waaw li ci nekk mooy li nekk fii après nañ déglu seen résultat yi ndax fii amuñu nit. Hmm. amuñu nit moom li ñuy def nii forcing la ko forcing la yaa def nañ ko benn yoon mu jàll. ñu defaat ko jéem a dama kasi dina jàll. Hmm. mais bii moom duñ leen ci bàyyi lépp lu leen jaral dinañ jaral ko. Yeah. Now we're going on dem We're going to elect you on 16 Street, 28 Peace Now, but I wait first. I wait. yow dañu bañ a tëjëg bañ a dañu bañ a fay xaalis. Euh, muy procureur bu a dem saisir nañ leen wax nañ ne organisation bi dañ ciy request ñu def audit pour les quatre dernières années te ñoom ñu ngi ci actuellement nii donc loolu du nit ñi wax ndax tàmbali nañ ko ba pare association bi dinañ leen wax association bi c'est pour tous les Sénégalais d'Amérique do association ah boo xam ne affaire de ñetti nit la ah, teg seen mafia di passante affaire ñun ñëpp ci bopp yam ah, donc lépp lo xamné ne. waaw ah, dañuy dañuy dañuy duñ ko nangu. lépp lo xamné jaral na leen ko ñun dinañu jaral lu ko ëpp. Euh, vas-y comme ni ko déggee woon euh, gars yi def nañu déclaration wax nañ né dañuy def fi élection bi 160 instant nak dañuy dañuy dem. ñoom né nañ dañuy dem 160 euh, pour def fa seen émission di def fa seen élection ci siège wu association bi oui ci siège wu association bi. voilà voilà voilà kon mbokk yi gars yi nag ñoo ngi joxe rendez-vous ASA pour dem euh, amal fa seeni élection pour l'instant xam naa dañuy dem ànd ak euh, ñoom topp leen xool lan moo fay jot a am incha allah.